jooy jug daalal ko lislaamaa ngi suux jug leen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jug leen daalal yàllay sa buur doo sàkku ngaramam sa soppe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 mu mel ni yéen a ngi ànd ak seen doom seen mbokk Abdoulaye njaay fii ci Mouslih TV ngeen ànd ak moom ci émission bi ñuy wax li fi réew mi tabaarakallaahu li fi réew mi nag émission la boo xamante ni ni ci njariñ ak jàmm rekk lay dox waaye loolu weesoo noo ngi leen ndokkeel ci weer wu màgg bi nga xamante ni ni tabaarakallaahu weer bu màgg boo xam ne ni yàlla moo ko xewalal jullit ni mooy li nga xamante ni moom mooy weeru koor kon noo ngi ciy sant mawlaana tabaraka wa taala moom mi ñu may ñi fekkee weer wi nga xamante ni ni defuñu lan wala ja ban njàmbaarte moo ne ci man wala moo ne ci ñun ba waral yàlla may ñu ñu fekkee weeru koor tabaarakallaahu am nañu ko fekkee woon daaw wute ko ren loolu lépp fa tabaarakallaahu ci dogal ci dogalu borom bi tabaaraka wa rek lay àntoo kon nag ñu ñu ko fekkee war ci am taxawaay wu rëy waaye nag wi ci njëkk mooy ñu am ci taxawaay boo xam dana koy sante yàlla ndax mbokk yi ku xam xiiwal yi nekk ci weeru koor teraanga yi ci borom bi dencal jullit ñi kon bu ñëwee lenn warul nekk sunu yitte waaye di sant yàlla ci xéewal bi nga xamante ni ni yàlla yombalal nanu ko ñi fekkee weer wii weer bu màgg bii di weeru koor fa tabaarakallaahu kon bu ñu xamoon njariñ yi weer wi ëmb bu ñu xamoon yiw wi weer wi indaale ndeysaan bu nu koy gàttandu dañ koy gatandu ak mbégte waaye di ko gatandu ak bànneex waaye di ko gatandu ak ay jaamu yàlla fa tabaarakallaahu ndeysaan ndax yiw yi nga xamante ni ni weeru koor àndale na ko waaye ndeysaan yàlla na nu yàlla yërëm te jéggal ñu ndax li tax bari na tey ci ñun nu sàgganee weer wi doonte nag weesu na waaye du ñàkk ñi wax ci ñu bari ci ñun sàgganee weer wi nga xamante ni weeru xéwal la weeru yërmande la waaye nag fa tabaarakallaahu nekk weer wi nga xamante ni ni yàlla da ci jéggale bàkkaar mbokk yi ñu waroon di profitoo di tuub di jéggalu sunu boroom ngir bu weeru koor gi jegesee wala bu ñu duggee ci weeru koor gi yàlla mën ñoo jéggal sunu bàkkaar fa tabaarakallaahu nga ne fan yi néew yi nga xamante ni moom la ma yàlla wërsëgal te du sama njàmbarte yàlla wërsëgal ma fekkee li nga xamante ni moom mooy weeru koor gi mbokk yi ñu jëm cee profitoo gis nga nit ki ni muy fexee ci mbiru àddunaam di sonn ngir économiser li nga xamante ni moom mooy alal économiser li nga xamante ni moom mooy ay biens noonu la jullit bi waree sonn économiser li nga xamante ni moom mooy tiyaaba nga ne kat temps bii nga xamante ni yàlla jox na ma ko ci weeru koor gi xaaral ma profité ci loolu mooy lan lépp loo xamante ni yiw la nga jéem ko ci màng xattaa sax ki nga xamante ni yow mi nga xamante ne doon nga dundandoog sa woy jur tey jiitu na la moo ngi moo ngi ci bàmmeel waaye nga fexe bu mu gis boppam ci weeru koor bi nga ne ma naka lay gisee boppam ci weeru koor bi ma ne la mbokk mi yow mi yow mi nga xamante ne yàlla yàlla wërsëgal nga am firigo imagine la nga duy ci galaas ba mu fees ak ngoon ngoon jot nga jël galaas googu ne maa ngi yéene saraxal ko sama jur bi nga xamante ni moom ma jiitu sa barzaq nga jël galaas nga tasaare glace boobu ku ci nekk fa tabaarakallaahu galaas ba nga ko jox yàlla dana euh, wërsëgalal sa waajur googu nekk ci bàmmeel tiyaabay bu toll ni kooru waa jooju te du wàññi ci te du ci kooram dara ñi fexe sa xattaa ñi nga xamante ne ni ñoo ñu jiitu ñu gis ci ñu gis ci seen bopp ndax mbokk yi temps dafa seer kon ci bu nu koy bu ñu ciy sonn wala di ko paase nañu ko paase li nga xamante ne moom moo neex borom bi tabaraka wa waaye nag ñu wattandiku jotaay yoo xamante ne ni amuluñu benn njariñ ndax sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na min xusnil islaamil mar'i tarkuhu ma la bokk na ci liy rafetal islaamu nit ki lu ci yoon lu yoonam newul bu mu ci dugg lu yoonam newul na ko ba lu yoonam newul na ko ba waaye fexe ba lépp loo xam ne ni yiw la lépp loo xamante ni lu baax la nga fexe di ko màng ci weeru kon boo deful dara demal ca jotaayu tafsiril quraani wala xatta nga jël sa alquran di jàng bul xeeb sa kurus bi nga yor lu ci tudd subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ndax lan weeru koor yàlla da ci fulandi li nga xamante ne moom mooy yiw di ci fulandi li nga xamante ne moom moo ci moom mooy tiyaaba kon ñu fexe ci góorgóorlu ndax góor ga waxoon na ni ku ci sàggan nu dem bala effectivement weeru koor ay fan yi néew la te ci sàggan mu dem bala xamoon ndax bii di ñëw ndax di ko fekkee waaye bari na ñoo xamante ne tey ci ñun weeru koor gi ñëw nañu sàggan ci sàggante mënta weesu weeru koor gi ñëw ba jeex amul lenn lu mu la bàyyee ci li nga xamante ni moom mooy ay résultat amul benn jeexintal bi mu def ci yow te weeru koor mbokk yi dafa waroon a ñëw di def ci ñun ay jeexintal yoo xamante ni ni bu nu paree danañ xam ne ni weeru koor am na lu ñu am lu mu def ci ñun ndax yàlla wax na ci aaya ba yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun nee na yéen ñu gëm maa farataal koor ci comme ni ma ko farataalee xeet yi leen fi jiitu woon waaye lu dul ni bu jàllee ngeen am ci ragal yàlla kon ñu fexe màng lépp luy yiw ci weeru koor gi ñu jëm ci am li nga xam te ne moom mooy taqwallahu mooy ragal yàlla kon nanu ci profitoo waaye fan yi néew yi nanu ci jéem màng yiw lépp luy mbaax alalu julli la te ko fekk da ko war a jël ba ci benn doomu tàndarma yonent bi sallallahu alayhi wa nee na nit ki bu wooree soo ba ngoon jot nee na doo donte doo benn doomu tàndarma la nga joxe ko mu dogee kooram yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yàlla dina la bindal tiyaabay bu toll ni koor waa ji te du wàññi ci tey tiyaabam dara kon loolu fu ñu ko mën a ame mooy weer gu màgg gi weer gu tedd gi nga xamante ne ni dara yamul ak moom kon noo ngi ñaan fa tabaarakallaahu yàlla na nu yàlla nangul suñu koor waaye yàlla na nu yàlla jéggal suñu njunte jéggal nu suñu rëcc-rëcc te bañ ñoo toppee suñu ñaawtee fi jëf ñi ko fekkee woon daaw yàlla dogal na ren ñu wuute ko yàlla na leen yàlla yërëm ñut nga xamante ne ñoo fi desandi te mu gaaw mu yéex dañ leen di fekk ji ñoo ngi ñaan yàlla noonu yàlla saxal cu njub tënkuñu su njub yow yàlla ñun de say jaam lanu ñoo lay tooñ guddi ak bëccëg waaye nag li ñu lay mën a tooñ yépp noo ngi waat ni kenn du jéggale ku dul yow yàlla nag nu jéggal yàlla boo nu toppee sunu ñawtee fi jëf yàlla boo nu toppee mooy yi ñu lay mooy yàlla boo nu yàlla boo toppee tooñ yi ñu lay tooñ yow yàlla yàlla nag nu jéggal sunuy bàkkaar yàlla nag nu jéggal sunuy njumte lépp loo xam ne ni yiw la muy teraanga nekk ci weeru koor gi yow yàlla yàlla nag nu yombalal ni nu ko tàmbalee mun koo yeggale yow yàlla noo ngi lay ñaan yàlla nag nu jéggal sunuy bàkkaar mbokk yi fa tabaarakallaahu li la indiloon tey ci li nga xamante ni moom mooy li réew mi ci Mouslih lépp lu ci jub ci yàlla lépp lu ci dung dëng ci ñun la salaamaaleykum wa ngi jooy jug leen daalal ko lislaamaa ngi suux jug leen suuxat ko. ni yàllay sa buur doo sàkku ngërëmam yóneen sa soppe